mbokk yi dal leen nag jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois ñu ñëw ak yéen ci actualité tey nag ñuy wax ci ki nga xam ni moom mooy Pape Mbaye di doomu Sénégal boobu nga xam ni ràññee ngeen ko lool mu nekk fële nga xam ni moom mooy bitim réew jamono ji nag ñi ngi ñuy wax ni mi ngi nekk entre la vie et la mort maanaam ci diggante dund ak dee loolu nag li ko waral moom mooy cambriolage boo xam ne subir na ko ki nga xam ni moom mooy Pape Mbaye ñu ngi ñuy xamal ni dañoo daal di cambrioler këram daal di fay jël ay bagage ginnaaw si loolu ñu daal di koy tiré six balles six balles nag la ñu ko daal di tiré information bi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu naataango yu Dakar live ñoom ñoo daal joxe information boobu la ñu ñuy wax ni ki nga xam ne moom mooy a jamono ji euh, mi ngi nekk entre la vie et la mort loolu nag nekk information bu doy waar ci kooku la nga xam ni euh, moom mooy Pambaay ñu koy ñaanal yàlla fëgg boppam ba mu daal di euh, dellu ci ay ma comme toujours continuer leen di topp seen site d'information a jox dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar.